yéen ñi di ñu suivre ci youtube bu ngeen bëggee jot suñuy publication da di di abonné ci Faaida TV ngir lépp luñ dugal ngeen man cee jot waaye bu leen fàttee ba cloche de notification. dafa dafa gan ñoo xam ne dañu ñëw pour màggal gi dem dal benn hôtel bañ demee ba nga xam ne war a ñëw ci màgg ñu tere leen ah ko ko koy ah hôtel ba lañ leen tere ko Cheikh Omar Diagne leen tere lu tax ñu tere leen hôtel bi. kooku nañ ko denc delloo ko si Cheikh Omar Diagne <laughs> nañ denc boobu delloo ko lu tax mu teri leen hôtel bi te di jullit kon ñoom buñ fa daloon duñ fay duñ fay dara ah affaire bango bu fekkee ne duñ fay ak état bee ko war a fay loolu loolu du di kuy jóg ngi dem ci réew dal ci hôtel danga fara war a fay hôtel ba nga dal mooy dëgg da ngaa a fay hôtel ba nga dal waaye doo dem ñu ne koy fayal yow itam suñ ne nag nañ leen ko fayal Cheikh Omar ne ah loolu li ñun mënuñu ko jeex na ñoom buñ ko mënee baa ñu def ni nit ñi def dem ca gàmmu ga ca màggal ga dal fan ñuy dal buñ paree ñu ñibbi loolu ku ne ku ne ku ne xam nga la gën a jaadu ku ne xam nga la gën a jaadu loolu gën a jaadu waaye daal Cheikh Omar Diagne daal laaj baa ngoog lu ko waral laaj baa ngoog lu waral daal gan ñooñu daluñ ci hôtel bi laaj bi nañ ko jox Cheikh Omar Diagne ndax bala ñoo tooñ jàmbur nañ ko laaj mu wax lu tax kon nag mu ngoog Cheikh Omar yaa ngoog mbir mooy mm. waaw man di yaakaar naa ne kuy gàmmu da ko man li li ma yaakaar laa man man daal li may yaakaar mooy kuy gàmmu da ko man man de damay gàmmu sama gàmmu laajuma kenn dara danaa teral nit ñi lu mat quinze jours gàmmu gi doog a ñëw dara duma ko laaj laajuma kenn dar ko fa joxe yaa xam ko joxool yaa xam parce que mbir da nga koy man yaakaar naa ni Touba ah waaye xanaa ku fa def yaa xam ku fa deful yaa xam waaye man mën nañ seen bopp Tiwaawoon buñ demee mën nañ seen bopp gàmmoog màggal yëpp ci yem nañu nañu préparé suñ bopp rek toog di xaar gàmmu gi daal nañu préparé yow gan ñoo xam ne ñëpp di nga ñëm ci jëm buñ ñëwee fa ñuy dal eh, ka leen di yore danañ leen taxaw taxaw bu rafet danañ eh, danañ am eh, teraanga bu doy ah, parce que loolu moo gën waaw moo gën li ci des doxul waaw li ci des doxul kon nag li liñ leen daan defal privilégié ak nangam nangam yooyu dañ koy wàññi fu nañ ko bàyyi sax suñ ko bàyyi woon du wàññi dara du wàññi dara ci gàmmu gi gàmmu gi day dox gi gàmmu na boppam ñun dañ ciy lang rek waaye gàmmu na boppam bala koo xam nga laaj ñu dëkk ci waan bu gàmmu jub dañuy jàmbat di jàmm bu gàmmu gi ñëw nag kenn du xam li indi li xéewal gi day ñëw teraanga bi di ñëw kenn ku ne sa danga da desal loo xam ne doo xam nu mu toll ndax bëri kon kay doy na gouvernement bu leen dimbalee baax na bu leen dimbalewul baax na gouvernement bu leen dimbalee baax na bu leen dimbalewul baax na muy Touba muy Tivaouane muy Ndiassane muy fu mu mën a doon euh, bu leen dimbalee baax na xam nga nit doo ko forcer ne ko damay gàmmo dimbale ma kenn du ko force nit gouvernement bi waxul kenn ne la gàmmool yow yaa seet ne damay gàmmu kon kay koy gàmmu war nga koo gannaaw gouvernement bi santul kenn bu la santoon nag ne la gàmmul kooku mooy yor gàmmu ga ak la ca war yëpp gouvernement bay koy def waaye nag yow yaa seet sa bopp seet sa gàmm bopp gàmmu gi Alaaji Maalik da nga ko doon def yàgg na yàgg na Maodo fu mu mas a nekk def na fa gàmm fu mu mas a nekk dëkk bu mu a nekk rek def na fa gàmm bu moom rek ba ñëw Tiwaawan def fi gàmm moo ay ñaari nit ñett nit otu dugub ñu togg seen cere lekk jàng def seen ñaan def seen jàng def seen lépp jeex na ba mu ne nag ba ko defee mu ne nag yàlla bu fekkee ni lii may def yow rek yaa tax yàlla na jëm kanam soo taxul na fi yem defe naa tax na de ah na de tey gàmmu gaa ngi ni maar day taali kenn xamul fi nit ñu jógee ak ak ak la fay xew ci yiw ak teraanga ak lépp kon nag mbir mi daal nañ ko bàyyi noonu kuy gàmm danga koy man luñ ci indi nga def ko fële baax na tax ba ñun dañu seetlu ne ci màggal bi ñu seen i bés am xaar dafa wax ni way politique yi lépp lu ngeen ci fii fekk na ñun taalibé dafa ñu ñu soxla mooy infrastructure yi infrastructure yi nga xamante ni moom la ñu soxla fii Touba bi nga xam ne Touba ndox ma bu euh, nekkee taw bu am màggal bi daa nekk ci bu nekk chaque fois bu way politique yi bu baax amee wala wala màggal am ñu ngi ñu ngi jaabante diggante Touba Tivaouane lépp lu lu ñu koy diggee daanaka luñ koy loolu ah lu ñu fay diggee waaw xam nga eh, moom daal li sëñ Bass Abdou Khadre wax daal dëgg la ñun daal mën nañ suñu bopp mën nañ suñu bopp ñu ngi toppatoo suñu màggal lu ca war danañ ko def infrastructure xaw ma lan nga ko waxee rek ah ah infrastructure ah déedéet du noonu nag <laughs> waaw yaa ñeme yàlla <laughs> waaw léegi nag loolu nga xam ne gouvernement ko moom yoonu état la état la koy bàyyeel moo tax mu ne ñoom nañ ko toppatoo loolu état moo ko moom gis nga gàmm li état bi moom na ko toppatoo li li sëriñ bi moom na ko toppatoo kenn ku ne toppatoo sa wàll waaye màggal bu fekkee ne def nañ la ñu war a def la ca des nag mooy loolu nañ dagg yoon yi defar ko dëkk ba ba mu jaar yoon ndax ndox mi ni muy mel dafay ëpp waaw ndox mi ni muy mel dafay ëpp waaw bu ko defee nag loolu baax na ci. dagg yoon yi dagg dafa dëkk ba ba mu ba mu jaar yoon ba mu nekk normal loolu moo gën parce que gàmmo da ku koy def ti mënoo ko sooy ba bàyyi ko gàmmo daal man li ma ci xam loolu la boo koy def manoo ko bàyyi ko ci seet kenn parce que yaa ko defoon xam ngeen ne gàmmu ci ba adduna tukki duñ ko bàyyi ba adduna tukki duñ ko bàyyi ndax at mu mu ñëwee ñu man suñu bopp duñ ko bàyyi abadan kon kay baax na màggal ko bàyyi ña jaru xalaat këru mag ñi li fa ne ci ay samp la fa nekk ci ay ay yaakaar du ñu tas yooyu yëpp ndax waxu état ah, ah deful li état deful état na na def la man rek na def la man la mënul mu bàyyi ko diggee ci fas ko yéenee def waaye nag boo ko diggee ci doo ko def du baax déedéet. dafa am benn bés. Euh, Dame mën soo jógee meewaan indi ay ginaar yu ngand ma ganaar yu wéeree ba mu indee ñëw Tiwaawan laajte ko ñu ne ko moom de dem na Mboro mu toppaat sëñ Mansour ba Mboro ba mu demee mu teg ganaar ya dem nuyu ko waxtaan moom yëkkati enveloppe jox ko ne ko mu ne ko lii lan la mu ne ko lii ay ganaar la mu ne ko ganaar yi moom foo ko jëlee mu ne ganaar de maa ko yar mu ne ko sa biir kër nga ko yaree sa kër bàyyi mu ne ko waaw mu ne ko ba mu toll nii mu ne ko waaw mu ne jël ko indil ma ko pour man ndawaloo ko mu ne ko waaw ne ko ya déedéet da nga koy delloo ko sa kër ga soo demee nga jox ko sa baay ak sa yaay ñu ndawaloo ko man ku topp ñaari wuy juróom laa mën a ñaanal waaye du mënumaa ñaanal ku toppul waaye ñaari wuy juróom wax bu dëggoo amul fenn sa ñaari wuy jur boo leen toppee ku la ñaanal mu nangu mm-hmm. ku la ñaanal mu nangu ku la ñaanal sax boo ñaanal sa bopp mu nangu boo ñaanul sax yàlla defal la waaw fonk wuy jur dafa baax fonk sa ñaari wuy jur dafa baax sëñ Babacar Sy radiyallaahu taala benn xale mas naa euh, tabaski jot mu am trente mille francs baay bi ne ko man de tabaski dafa ñu ma bëggoon nga dimbale ma tabaski bi mu ne ko ah man sama li ma yor sëñ Babacar laa ko yóbbu sama sëriñ waaye nag gis nga sëriñ ba ma sëriñ baax na fa taal bi na bi ba dem rek ba mu demee fekk sëñ Babacar a ngi toog mu ne ko boo demee ziyaare waatal ma ko seetal ma sëñ Babacar bu baax ba mu ñëwee mu sukk dirang dirang dirang ba yegg sëñ Babacar sëñ Babacar nuyu ko téye ko ne ko naka def mu ne ko maa ngi mu ne ko ana sa baay mu ne ko mu ngi fi mu ne bii li ci ne ñeenti junni yóbbu ko mu boole ko eh, ñaari junni yam yore muy juróom benn junni mu def ko tabaski mu tiit lu ko wax sëñ ka ko jaaxal buy wut wutal sëriñ bu xam lépp sëriñ boo xam ne dalay fegal ay musiba waaye tey boo ko joxoon benn am na sëriñ boo xam boo ko joxoon mu la waaye itam lii daa tuuti ah, ma man nga ko def lu bari waaw ah, xepp waaye def koo naw ni ko yóbbul ko sa wuy jur soo demee boole ko la nga ko joxoon génn ko tabaski mu jëndee ko tabaski loolu muy wuy jur waaw ah, kay ngene ah, ngene lana lana puukare boobu man amila saalihan fa li wa man asaa fa aleyha ku def lu baax sa bopp nga ko defal ku def lu bon sa bopp nga ko def nañ leen bàyyi gis nga gàmm yi nga gis ak euh, gàmm yi nga gis ak màggali kenn ku ne ak la nga la nga dem loola ngay am waaw kenn ku ne la la yóbbu rek ngay am ku dem pour tiitaru loolu ngay am ku dem ngir yàlla lool ngay am ku dem ngir yonent bi loolu ngay am ku dem ngir sëñ Tuubaa loolu ngay am nit ki dafa war a seet la tax mu dem alaaji Maalik dafa wax ne allah azimu laylal wilaadati xisbatan ida lam yakun naxwal xaraami odoolu loolu la Seydi Alaaji Maalik wax nee na màggal leen guddi juddu yonent bi su fekkente ne nag lu xaraam du fa am bu fa lu xaraam di am na bàyyi leen ko waaw kon nag moo tax am na genn góor gu ñu waxoon ne ko waaye itam doo gàmm mu ni mukk a ah, gàmm da ngay am autorisation Seydi Hadji Malick rek laa la xam ma am autorisation bàyyil ma dem ci gàmmum te loolu mooy dëgg dajale ay nit da leen di wax lu wóor yéen daal kuy gàmm si ñëwal ngir yonent bi ku ñëw ngir leneen nag man man reesuma la ah ñëwal ngir yonent bi kon ñoo ñuy dem ngir puukare loolu rek ci am. yàlla gëmul nelawul yàlla du gëmul laa taquzuhu sinnatun wala nawmun yàlla du gëmmintu du nelaw kooku jaru jax jarul wax ku ne la la yóbbu am waaw ku ne la la yóbbu ngay am innama al wa innama li kulli imri ma nawa kenn ku ne la yéene rek ngay am boo demee